abonné dal disul, do fay dara bësal rek bu ko defé lo ñëwati nga mën ci am recette yaay ci ko yor kay ñu dem abonné Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وحلمنا كل ما جهلنا فيكون gannaaw bañ sant yàlla julli ñaan ngërmande yàlla seen sëriñ mun la wàccee ba seen sëriñ xalifa si Ahmed Tidiane ko doon si maqaamam bu feeñ ba ak bu ba doon mbootam muy mawlaana seen darsu ñaareel bi si laxdar ña nga war a dara tàmbalee si way jibu yi ifsu lisaanihi mu lay waxal li nga xam ne mooy cër yi lan mooy seeni bàkkaar ndax cër bu nekk rekk am na du def am ci bàkkaar muy tàmbalee ci làmmiñ bi mu ni way jiibu dina war mu kalaf bi nag ifsu lisaanihi mu wattu làmmiñam bi minal faxsaa'i ci wax ju ñaaw wal kàllaami xabi yi ak wax ju bon làmmiñ wi war na koo fekk ba muy wax wax ju rafet bañ wax wax ju ñaaw ak wax ju bon wax ju jóg rekk ba nekk ci kanamam gën a ñaaw rek boobu mooy nekk wax ju bon ji ba ca topp nag mooy bu njëkk ba mooy nekk wax ju ñaaw boo waxee dara ñii li nga wax ñaaw na de xamal ne li nga wax noonu dañ koy tere tere nañ ko mu kalaf boo waxee ñu yaa wax sa wax ju bon ma yaa wax lu bon loolu tamit xamal ne moom lañ lay tere bàkkaaru laa mañ daal mooy wax ju bon wala nga wax ju ñaaw wax ne murtad naa génn ci diine ji wax ko ci sa làmmiñ loolu wax ju bon la di mel ni saaga nag yooyu nag moom wax ju ñaaw la waaye nag yu mel ni yi nga xam ne ci wàllu waa daal la nga wax ci safaan wala nga ŋàññi ab yónnente wala nga ŋàññi ab saaba loolu moom wax ju bon la loolu tamit dañ koo tere mu kalaf bi wa ay maay taalaq ak ngëñ ci fase ngëñal fase loo wax rek gëñ loolu lay tere ne soo ma defaloon nangam maa ngi gën ci yàlla ne dana la fafe soo ma indiloon ndox soo ma jëndilul nangam su fekkee deful lool rek fase ba tàbbi na moo tax ñu ne ngëñ si fase tamit loolu laa mel ne koy def ñu ngi ko koy tere wanti xaari muslimi ak gëdd jullit gëdd jullit mooy di wax waxe waxee doole rekk sa moromu jullit ngay wax ak moom di ko gëdd di wax waxe doole loolu tamit dañ la koy tere wax jo xam wax ji dafay yëkkatiku wàllu xol mo taxit nañ la koy téré ndax ki ng koy wax bu dé dang ko bëggoni gindi man naa am dutoo ko gindeeti mën naa am moom itam xolam bi jot kom ni sa xol bi jógee wa ihanati ak ko julit lépp lu wax nga xap ci suuf timit dañ la koy téré wasa bi ak ŋàññ ko lépp lu mu wax nga ñaawal ko foo toolu tamit di xëpp ci deram bi loo xam ne nag du naka sudd noonu nekk lu rafet di ko aatee loo xam ne defut ko lu ñu wax nga xëpp ci suuf lu nekk nga tuumaan ko loolu tamit dañ koy tere ci lislaam waa tax yu fii ak ragalloo ko fii xayri xàqin ci lu dul dëgg sanayaati baykat ak yoon nga koy ragalloo ragalloo mooy nga koy ragalloo wàllu xibaadaar yi li nga xam ne mooy jaamu yàlla yi julli nga koy ragalloo naan boo ko defee nangam ak nangam walla xoor boo ko defee nangam ak nangam wala sarax boo ko def boo ko defee nangam ak nangam nga koy ragalloo li nga xam ne daal sareet da koo digle loolu dafa xaraam waaye nag nga ragalloo ko loo xam sareet da koo tere loolu moom dara nekku ci. waaye jiib dina waran lii si mu kalaf if su basir moo tu gisam min nasri qol ila haram jëm ci lu araam teral nañ mu kala bi mu qol lu xaraam wartu qol lu haram ci bi lu melni ni jambur mo xam fu mu mo moo xam sax mo feñ fu mu feñ rek moo xam ñu feñal ko moo xam mo feñal ko mom rek dañ lay tere yow bët bi pour bu ko xol bakkar bët xol la bakkar nopp deg la la meñ wax ci bon la dégg lu bon lu har liñ haramal nopula gis lu bon xol ko yu melni ni yu melni bal ak yenen yi nga xale dañ ko téré yoy lu haram la kon lolu moy bàkkaaru gis wala yixilu du dagan laxoo ñeel kala bi an yunsura muy xol ila muslimin ci jullit ila mun muslimin jëm ci jullit bi nasiratin si xolin bo xale da koy lor daganul si mukkalaf bi muy xool jullit jullit xool boo xam ne da koy lor kon nga yaakaar kon nga xamee si ne am na bët yoo xam ne moom baaxut kum xool rek mën nga sa jaare yàqule moo tax ñuy bët boobu tamit nañ ko xool ku jullit waaw tere nañ ko xool ku jullit illaa an yekoon lu dul dafa nekk faasixan di kàccoor bu dee kàccoor la moom su la neexee soo ko mën a xool ba mu bàyyi la may def bu dee day xool bu dee day làmboo mooy yàlla fekk man nga kaa xool sa bët boobu ba mu dindi deñ si mooy yàllaam gi ma ma mën nga koo xool ndax fa jibu dana war sax moom faasix boobu xijiraanoo nga tong ko nga tong ko mooy nga seppi ko looy defati bu ko yëgal booy tudd bu ko yëgal booy xew bu ko yëgal yaa ngi dégg lépp loo xam ne danga koy def na ko seppi ba set wécc wécc wécc moo xam ne yow mii lu bon nam nekk àndoo si mu ne loolu may nañ la nga def ko faasix bi waaye may nañ la nga def ko jullit bi jullit bi moom lu xew rek yégal ko waaye jibu dana warte mu kalab bi ba tey xif su jamee jawaar yi mu wattu mbooleem cëram sa cër yi tànk loxo nopp sikkiñ bakkan ba gémmiñ ba saxawra yëpp danga ko wattu bu nekk rek nga jaarale ko ci li nga xam ne moom la ko lislaam sant lu ko lislaam tere nga bàyyi ko ko mastatan na nga ko na ko wëttu sa kéemtulaay kàttan kon nga xamee si ne maanaam duur yëpp mën nga leen di sàmm ba duñ tarxiis waaye nanga nga ci def sa kéemtulaay kàttan wa an yu hiba booy bëgg nit ki lillaahi na nga ko bëgg te yàlla tax nit ki bul ko bëgg ngir xalal wala xam-xam wala daraja na ko bëgg ngir yàlla wa yuqida booy bañ nit ki loxo ngir yàlla boo koy bañ na ko bañ ngir yàlla nit ki noo koy bañee ngir yàlla mooy mooy yàlla yi muy def da nga bañ ngir loolu noonu yàlla da koo tere ndax yàlla bëggut ko kon jikko ja nga bañ ak jëf jëmee làmboo moo xam muy naan sàngara nga ne kii ni ma ko bañee naan sàngara am sa nga bañ su ko bawoon di julli léegi nga bëgg ko loolu mooy bañ te yàlla tax waaye daa booy gërëm loxo ngir yàlla booy gërëm nit ki na ko gërëm yàlla tax waaw tabax fi ay baal ak ay yii nii kooku boo ko gërëmee tamit yàlla taxul waaye ko tabax ay jàkk moom boo ko gërëmee yàlla tax boo yëqida booy bañ boo yàq dëgg booy mer loxo na yàlla na yàlla tax nit kii soo koy meree na ko mere <coughs> si lan si day xotti sa yaatu wala day <coughs> màbbu li nga xam ne moom la yàlla digle pour ñu def ko di digle li nga xamne mom la yalla téré pour ñi téré ko ko bokoy méré nang ko méré ngir lolu lolu moy mer te tax waya amuru boy digle ba tay yow mo kalaf bi bi na nga digle lu baax waya naa boy téré na nga tere hanin nin mun këri luñ sib waya haramu dana haram liñ sib nak bari na lepp lo xamne ne bëggut ko muy yaqal doomu adama ci dundam dañ ko sib tukh nan sangara yoy yeb baaxul dana dalay jaxase sa xel rek moom luñ sib la luñ xaraamal la wa yarumu dana raama lii samu kala bi alkasibu fen fen moo njëkk lépp luy nit def fen daal mooy cat laay def bàkkaar yi fen boo ko bàyyee rek bal maanaam sa sa dund jag fen gii nag safaanam mooy ñàkkaa fen ñàkkaa fen safaanam mooy fen kon fen daal boo ko bàyyee dem si dëgg kon daal dëgg moo dagan fen a xaraam wal xiibatu jëw jëw mooy lan mooy nga wax nit loo xam ne dëgg-dëgg su toogoon doo ko wax waaw kon yaa ngi koy jëw te yonent bi ne jëw sa moromu julit mi ngi mel ni ngay lekk yàppam te ñorul jëw tamit safaanam ba mooy ñàkk a kon jëw moom moom dafa xaraam ñàkk a jëw moom dara neew dara neew si mooy bu baax bi wa na mii rambaaj rambaaj mooy jaxase jaxaso ñaar ñoo xam ne dañoo rataxoon ànd di dimbalante te yàlla tax di deflante te yàlla tax nga ñëw ci kii ne ko di sàngam de lum la wax soo ko xamoon danga ko ba dem si keneen wax ko loolu bañ xëyee ñoom ñëpp ñu jaaroo taal eh, loolu tamit rambaaj la donc dafa xaraam ci lislaam dafa xaraam yi mu laay wax nii yëpp dafa xaraam fen daa xaraam jëw daa xaraam rambaaj daa xaraam wal kibru rëy daa xaraam rëy mooy lan mooy yow daal buñ jiitalee kenn sax yow d'accord si loolu sa xol bi mu ngi rëy wala yow sax mënoo def sax bu ñu lëggéeyal jàkka sax mënoo jóg jóg sax lëggéey mënoo ko ndax rëy rëy daal sa xol laay ne moo tax bi ne képp koo xamante ni lu toll ni pepp sara mu ngi si sa xol bi si rëy euh, doo dugg aljana waaye doqulu janata man qaala man kaana misqaala saratin minal kibri doo dugg aljana wanawaj ba ak yem jëf lépp loo jëf ne maa fi def nangam maa fi def nangam foo jëlee wax rek ne def nangam maa fi tabax jumaa ji su ma ko tabaxutoon amu leen xaalis di ko tabax loolu yem jëf la ba tey jëf jooju maam day màbbu tiyaaba day màbbu te dafa xaraam yem jëf dafa xaraam wariyaa ngistal ngistal daa ngistal mooy lan mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek nit ñi buñ teewu doo ko def julli sax bu nit ñi teewu doo ko def kooku moom jaamu nit ñi la waaye du jaamu yàlla wasumatu ak ndegatal ndegatal moy lan moy lepp lu nit di wax nga deg ko rek yaa ngi ci gannaaw ngir lan ngir deg ci dara rek lo xam dang ko meuna dem netali ji ba tey loolu daa araam nit daal boo fekkewut deewaa xamo ci dara ni yow waroo làqatu di deglu ba fa deg ci batu ni rek na deg na sax fa sa tur kon la wal sudu wal ak nay xasadu xañaan moom yonent bi ne day lekk jëf ju baax comme ni matt di safara di lekkee matt xañaan baaxul kon xañaan boo ko defee sax dootoo la lëggee ndax képp kuy dem da ngay jéem nekk ci kanamam di ko galgal di ko di ko teg ay diil di boole ay bandi ñi koy sonal leneen ko koy def walla ngay dem ci ay sëriñ di jël sa xaalis di investir ngir moom bu mu dem fenn ndax loolu gis nañ ko mu ngi commencé. ay armée sax nit ku dee nga dem jël ko yëkkati booba di ko defal lu ne ngir nit ki bu mu dem rek loolu xañaan la dafa xaraam koy def doo dugg aljana wal buxdu ak nay nay timit yow boo feebaree sax doo fajate yaa ngi raxal ji du jeex nay la te njaboot ji duñ lekk nay la dara yow daal jëri yu baax la doo ko sol tey buñ gisee yow jeexaloo dara da ngaa nay doo dugg aljana tax te dafa xaraam wa ruhiyatul faddali ak xool bëtu ngëneel ala xayri yi jëm ci sa keneen xool bëtu ngëneel jëm ci keneen lépp luñ jox nit rek yow yaa ngi gën lanteeg moom naan lii mën nañ ko war a jox wala suñ ne defal naa nga sax nga ne kii ko war a def waaye man man waruma koo def loolu tamit dafa xaraam dama duy biron ba sama rakk ji dama duy ne yow mënoo koo duy kii moo ko war a duy kii moo duyoon démb lu ne nga koy teg loolu mooy xool bëtu ngëneel xool bëtu ngëneel ala xayri yi jëm ci keneen dafa xaraam walamsu piisu dafa xaraam walamsu regeju dafa xaraam piisu nag loolu dafa xaraam bëri na trop ci jamono ji piisu ak regeju dafa xaraam regeju mooy waxee bët dafa xaraam wala busu fo dafa xaraam fo yi fo yëpp dafañ xaraam ba mooy ñett foo ak sa jabar foo ak sa fos yi nga xam ne moom ngay wari xale ji ak fital gi nga xam ne ak fitig yooyu daal lañ yañ yañ daganal waaye yu dul yooyu dafa xaraam pelen yi ak lépp dafa xaraam wa suriyatu ak reetaan reetaan rek réew soxoot la si jublu réew soxot dafa xaraam waaw nit ki xamoo gaañu na am gaañuwul bu daanoo xamoo gaañu na am gaañuwul nga koy ree réew soxot da ngaa war a xool ba xam gaañu naam am gaañuwul waaw nit ki am jabar mu dee nga koy ree réew am oto mu accident nga koy ree réew soxot xabal la sama oto bi nga dem def sob mu accident nga dégg ko rek naan bi ree réew soxot naan rang sa kay la yore woon di ree soxot loolu dafa xaraam wazina njaalo dafa haram njaalo nak kep ko xamne mom moom lislaam mayut nga dem and ak mom rek njaalo la atte ba sax moy budi am nga jaba dañ la wara ray budi am mo jaba ñi tawla coow yar wa nazaru aqul illa anni ajnabiyati jëm ci jambur bu jigen mo xam moy rek jambur jabar jambur mako jambur ku mëna dox te ganna dal du soxna nga xol ko xol bo xamne watal sa su ngay banexu bi kàllaam sa wax ja xol bi nga fe banexu wax ja nga bànneeku sa bobu tamit dafa haram mutlaqan wa akala amwaalu nasi ak lek halal nit ñi bi xeyri tebi nafsin sa ak bakkan lek halal nit ñi si sa banexu bakkan kefe lol tamit dafa haram fexe ba defaloo nit ñi keef ñi dajale ko lu at nga këpp kess gi daw dem Europe fo mën nek la ngay lek lu haram fexe ba def nit ñi fexe ba nat na fi trop ñi nat lu ay million nga gëpp ko daw dem foo mën a nekk li nga lekk lu xaraam waaw wala kulu wala wala wala ak kulu ak lekk bi safaanati ak ramb si ramb koo xam ne mën nga koo jàppale waaye nga laaj ko xaalis boo xam ne su la ko joxee domb day dem taxawaa taxawaalu jihaat su génn ci problème bu mu nekk nga fexe ba laaj ko loo xam ne naka tudd noonu loo lekk ramb la waaw koo mën a ramb daal wala koo mën a jàppale jàppale ko te yàlla tax bañ koo laaj loo xam ne naka bool ko joxee day gën a sonn si adunaam kooku tamit lekk ràmb la aw bi diini walla ngay diini diini lu dem naan jàkk ji de ñoo ko ñoo ko fondement dañ ko yëlwaanal ñu jox la xaalis bu bari nga dem jël xaalis bi yëpp lekk ko tëdd si yow ak sa njaboot loolu dafa xaraam wala nga ñëw ne daara ngay yëlwaanal jël xaalis bi ñu sarax la sa xaalis bu bari nga dem jokkaay bi tabax ci kër loolu la ngay lekk daa walla nga ñëw ne daayira bi ngay liggéey defar ay carte comme niñ ko gisee rek defar ay carte naan dangay liggéeyal dëkk nangam jox la xaalis bu bëri ci carte yooyu nga jëm këpp ges nga lekk ko la ngay lekk daa kon li nga xam ne moom la lislaam tere soo ko defee rek société bi dana jag li nga xam ne moom la la lislaam tere nga ba ko soo ko bàyyee société bi jag lu mu digal boo ko defee société bi dana jag dana dana dana jag ndax jàmm ñaa ngi koy xamee ci lislaam ndax jàmm mooy lislaam al islaamu mooy jàmm salaam mooy bi moom ba baatu salaam inna diine neen laay lislaam yàlla nee na daal diine ji ci moom daal mooy jàmm jàmm soo ko amul dama naan ndox mu sedd wantuloo du la xupp courant bi du leer xay bu ñëwee rek geraam courant bi coupé réseaux yi lépp yàqu dara du dox te lii lépp benn frigo du dox benn wantuloo du ëpp kenn waaw lëndam ñëw ndax lépp loo gis ci kaw mu ñii di si bànneex wala si kaw jàmm nañ ko amee waaye su jàmm jeexee dara dara dara du fi ñëwati du courant du ndox du frigo buy seddal du làmp buy tàkk du wanteloo buy xupp buñ demee ba jàmm jeex rek ngay xam ne jàmm neex waaye bu jàmm bu ji fekk jàmmoom fi doo xam ni nga yore kon daal inna diine hendallaay islaam ñu koy fooyee yëpp di déclarer ay musiba lépp dañoo xamul rek li xew rek waaye boo xamee ne jàmm moo gën mu si la lépp xaj rek nga ñàkk jàmm balaa nga koo xam rek nga xam balaa ngay xam ne wéral neex nga feebar boo ko feebaree da nga ko xam la nga mënoon yëpp nga tëdd di gis nit ñi ñu koy def te yow doo ko mën foofu ngay xamee ne jàmm si la lépp xaj wa aqulu da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin